voilà mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show tey di le 12 mars 1900 ah 2014 ñu ci am mbégte contentement bu koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi mbokk yi gis nga nag décor bi nga xam ne nag moom la nekk fii ci Télé Futurs Médias daal di koy indi participation moom ci li nga xam ne nag nee na mooy anniversaire El Hadji Bilal participation ñu koy rafetlu bu baax waaye di am mbégte contentement bu mag nag tey ci programme bi ñu ci nag tàmm lekk li nga xam ne mooy réaction Malick Gakou ndax yëg ngeen ne nag moom loon ci réew mi fexe na nag ba bi mu wàccee aéroport Léopold Sédar Senghor journaliste daal nañ koy dab laaj ko nan la gisee wax président Moustapha Niass moom yëkkati ci ci ay kàddu yu am solo waaye nag bu leen fàtte ne maître El Hadji Diouf tey ci journal bi nga xam ne moom mooy la tribune yaram bi yëpp day metti ndax policier dañ koo tënc waaye tamit dañ ko doon euh, jéem a ñi nga xam ne ñooy avocat wu Hissène Habré dañ ko doon jéem a euh, avocat wu président bi nga xam ne mooy Tchad dañ ko doon jéem a corrompre pour mu bàyyi Hissène Habré yooyu yëpp dina ci indi ay leeral waaye Mously Diakhaté bi nga xam ne moo waroon ànd ak Marème Faye ci bi nga xam ne Euh, présidente euh, première dame du Sénégal waroon na ko def ci yi pour jàppale euh, ki nga xam ne mooy borom këram da koo mujj bàyyi lu tax na mu bàyyi ko Mously Diakhaté dina fi ñëw tey ci kaddu madame la première dame ari koy tontul Karim ba tey nekk ci troisième demeure bi nee du bàyyi ma ngay tàngal kaso ba nan lay mujjee ak pénitentiaire boo leen ko bëggee xam toppuñu mbokk lii boo ko gisee mooy mint bi duñu tàyyi parce que bés bu nekk nit jënd télé war nit amagul télé kon ku amagul télé xamal ne li fi jot a jaar mooy tàngal mant bi nga xam ne mooy bonbon fraîcheur mant makaawo mint gis nga tempon bii ngeen di gis nii boo jëndee tàngal bi ci gisoo ko ci xamal ne la ngay màcc baaxul mën na la indil jàngar koor indi ay feebar ay musiba naaral jaani lii nag commerçant yu mag yi ñoo ko moom boo ko jëndee te fekkoo ci cent pièces xamal ne foo bi la boo gisul lii xamal ne dañ lay nax kon na ngeen jàpp ne bii mooy tàngal bi neex bi baax ci seddaay bi tey neexal gémmiñ kii nag démb maquilleuse bi ci boppam mu naan ma Kouthia boisson bi dama gis ne góor ñi rek ñoo koy naan ndax jigéen mën na koo naan mën na ko yaasin boo ko bëggee ñam nii ngay def def nii hmm. daa dee teg jël sa pinceau boo makkee nit boo moytu bu xullee di ko buqi kon lii tàngal yaram moo ko tax a jóg waaye tamit yokk cawarte boo ko tax a jóg jigéen mu na ko naan góor mun na naan xale mu na ko naan li ci am solo daal mooy nga xam na ne daal li ko tax a jóg mooy tànga sa yaram wari yónnee xaalis ak jot xaalis dama ne wari moom moo ci numéro ñoom ñoo ko moom Africa Million nag samedi bu nekk mu séddale ay millions ci biir raw te rawatina ci Sénégal ndax cagnotte bi xam ngeen ne boobu léegi mu nga yéeg ma nga ca kaw ma nga ca suuf yéen a koy yokk yéen a koy mën a tax muy gën a tasaaroo ci àdduna bi mbokk yi journal bi li mu bind tey mooy programme bi nga xam ne moom la leen wax ci li ko dalee ci maître El Hadj Diouf jëm ci Gakou ak Karim Wade mise en demeure troisième mise en demeure bi waaye ka nga xam ne mu nekk ci régime de Pierre da Silva ànd ak équipe bu mag bi nga xam ne ñoo nekk ci wetam Adja mi nga xam ne mooy stage di jàng xaw ma ndax moo ko la moom déet waaye nañ jàpp ne ma nga ca stage ba Aliou ñu koy nuyu di réalisateur moom tamit technicien di nuyu tamit Babacar ingénieur Babacar ñu koy nuyu tamit di nuyu tamit top di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Amadou ak stagiaire yi nga xam ne ña nga ca wet ga ñoom ñëpp ñi nga xam ne ña nga fay branché xëtti fiil madame Guissé nuyu lañ ko ñoom ñëpp waaye tamit delluwaat di leen xamal ne lii ngeen gis nii yëpp pour anniversaire u tey bi la <laughs> mais waa yéen amuleen loo leen di amuleen may loo leen may décorer lu dul guirlande bi te xam naa ne bu dul woon mami doo leen ko sax xalaat def mais yàlla baax na man moom yàgg naa def anniversaire fii ku ne teew fii waaye amul benn problème àdduna amul solo xaaral booy liggéey ci bërëb te borom kër gi ci boppam nekk allo waaw waaw kooka la ah yu sauvage d'accord merci benn patron bu amul patron set yeneen patron yi waaw eh Alaaji deses waaw mais gën a alors waaye gis naa sa appel tey suba yaa ngi may souhaité vraiment te bokk ñu doon sama patron oui vraiment kontaan na même Abdou ah, directeur bi quoi non mais eh eh waaye mais bul coupé bul coupé Sidi Lamine moomee wa di ma remercier nii waay merci à ah, El Hadj Ndiaye waaw Sidi Lamine waaye mais vraiment wax nga dëgg xam nga daan naa ko fete sa télé mais kontaan naa ci yow parce que yow xam nga sax xam nga doo sama patron mais woo nga ma quoi <laughs> merci ok Sidi bul quitté allo Jupiter RDV Ismaïla non yéen na moom yéen xoolal topp ngeen seen papa ni mu doon def chaque année vraiment seen papa bi mu fi nekkee yàlla na ko yàlla xare àjjana mais vraiment ni la doon def waaye bu leen quitté allo ko ala allo ko ala télé Gambie way na ngeen def ah yéen a ngi waaye vraiment kontaan naa waaye xam nga yéen doole sama patron sax may ma waaw bu kitee allo waaw Bougane vraiment ah non bàyyi la wax yow ngeen non mais Boug trois millions par mois non waaye nga ne yow trois mille dara seen téléphone la yem oh Bargny